moom itam am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko jëm ci euh, ni ñuy euh, traité sénégalais yi ci euh, yenn banque yi. Mm-hmm. dem sax ba koy tuddee ak càcc goo xam ni daanaka moom lay nduru. Mm-hmm. ñu teewlu ay kàddoom. opposition boobu bu dee chéquier bi la banque bi dana naan chèque bu ne boo ci bëggee def opposition da ngay fay huit mille francs dama ne loolu sàcc la. carte gab bi boo demee neneen dama ci bëgg a def opposition dañ ne da ngay fay quarante mille francs waa sàcc bu ndaw bi sàcc say bagage sàcc sa chéquier sàcc sa carte gab moom muy sàcc bu ndaw nga bañ mu utiliser carte bi wala chéquier bi pour dugg sa compte nga dem ci banquier bi fekk fa sàcc bu mag bi sàcc bu mag boobu ne la sa carte gab de vingt trois mille nga ko jëndee waaye boo ñëwee di ko def opposition da ngay fay quarante mille sa chéquier de six cent francs nga ko jëndee ñu sàcc ko waaye man mi sàcc bu mag bi boo ñëwee di def opposition chèque bu nekk da ngay fay huit mille bu dee vingt chèques moo la dese woon di nga fay cent soixante mille pour que chéquier bi nga def opposition dama ne sàmm sa gafaga sàmm sa ëllëg ak actif bu demee assemblée nationale dana def ay résolution yoo xam ne képp koo xam ne da nga perdre sa carte gab wala sa chéquier boo demee police bañ defal la certificat de perte boo ñëwee ci banque bi opposition bi ça devient gratuite dama ne bulletin bu baax baa votel leen ko ndax ngeen am jàmm ci banques yi ak ci compagnie d'assurance yi maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa Diourbel yaakaar naa yaakaar naa ki li muy xeex mooy enjeu bi aujourd'hui ci développement surtout bu ñuy wax inclusion financière ndax euh, euh, problème yi nga xam ne moom lu usager yi di jànkonteel ci banque yi mi ngi koy tudd carte bancaire yeeg chéquier yi nga xam ni daanaka boo ci réeral dangay sax xaw a découragé ne ndax jaratina may dem banque ndax li mu mën a dikkee moo ëpp fuuf te yoruma ko ci sama poche certainement bu ko waxee ci campagne électorale yi euh, wax na ko fi mu ko war a waxee mm-hmm. dëgg la fii kenn rëccul de <laughs> sunu yaay retraité sax rëccu Euh, charité bien ordonnée commence par soi-même mm-hmm. euh, tubaab moo ko wax olof ne bala ngay dem ca biti di wax la ca problème bu biti ba waxal li ci biir mm-hmm. man sama cas d'école laay wax muy sama yaay chaque mois ñu dagg ko vingt mille francs te retraité la mm-hmm. waaw carte gab boo xamante ne xamul ban at est-ce que sax mus na am carte mois dix mille dix mille mille dix mille man maa ko gisa sama bopp te am naa ci preuve fonctionnaire hiérarchie A1 ba muy ba muy jàngale boobu defe naa kenn ñu bëri jàngale moo njëkk a nekk eh, eh, eh, institutrice bu réussir bac deful première deful terminale di jàngale di wàcc di jàngi di jàngale ba ba ba dem ci am déeyaam ak yépp mu dem tey amul sax 300 000 francs de salaire hmm. est-ce que c'est normal waaw ak leneen ak leneen kooku ñu kawe ñi laay wax hmm. bu ma demee ci Famara Ibrahima Cissé actif amul dara association du état du institution financière du par partenaire du dërëm yu ñuy jox sunu naataango consommateurs yi sax xam nga lu ñuy wax ñun dañ laa leen ñun ba banque yi la ñuy défendre ñoom ñu ne ñun xaw ma ñun ñun ñun ñun euh, clients yeeg institution lañuy la ñuy défendre ak euh, le secteur informel ñoom ñu ne ñun banque yi la ñuy défendre te pourtant ñun ñoo bokk consommation bi mhm. amul benn association de consommateur tey mun naa ko signer valider ko buy defaan client ak kii ci seen i banque ak seen i gafagaak ainsi de suite. te ñoom déjà ay clients lañu ci banque yi. non fii ñëpp ay clients lañ. fii ñii yalwaan sax ay clients lañ ndax bu ñu yalwaanee ba ngoon mun nañ ko dugal Wave wala ñu dugal ko mm. euh, Orange Money ainsi de suite. Mm. donc amul ku mun a rëcc banque. Mm. fii fii ñu toll nii nii ñu àddina bii ñu nekk même ñi nga xam ne ñu ngi am téléphone sax. Mm-hmm. duñu rëcc ndax am na banque en ligne yoo xamante ne état mi ngi koy gis ñi ngi arnaqué mm-hmm. ñu naan dañ lay lebal prêt tous duñ la ko jox mm-hmm. dinañ jël sa gage ba pare doo gis dara ak leneen ak leneen ku waxul dëgg wax fen ñii li ñuy wax mooy dëgg ñoom ñaar ñëpp ñi ñuy wax mooy dëgg lenn nag mooy seen problème mooy état mi nga xamante ne mooy seen papa mooy seen yaay moo leen boote moo signé ay loi yëpp du surveiller loi am du doxal loi parce que day seetaan ay doomam ñu leen di sacrifier rawatina ci ñi nga xam ne ay étranger lañu yéen a ngi koy wax boobu ba léegi du jeex mhm. du jeex du jeex lan moo waral solo vous complexe d'infériorité boobu deux cas de figure moo am déjà entreprise yi ñu leen di ubbiloo est-ce que ñoom adapté wu nañ ci entreprise yi président Sonko keroog mu ngi wax coopérative pourquoi état du pousser nit ñi ñu dem ci coopérative nag léegi ndax coopérative boo xoolee OHADA ba parce que man depuis 1900 euh, et quelque maa ngi testé ay modèle de développement te bu ci nekk dama cay dugg am ca entreprise dugg ci dem coopérative mais seetlu naa ne boo demee mission coopérative ak waadaa li mu wax parce que waadaa moom àddina bi euh, euh, Afrique moo ko moo ko moo ko ëmb. Mm-hmm. état bu dalee ci waadaa day <laughs> du baax ci moom. Mm-hmm. te waadaa nee na la euh, entre coopérative bu teg mu am 1 milliard 1 pour cent la pour cent boobu 1 pour cent 2 millions. 2 milliards ça mm-hmm. du tax état du pousser nit ñi ñu dem ci coopérative comme ñoom mu ñoo gis seen bopp ci entrepreneuriat. wala ñu am entrepreneuriat am coopérative mooy la euh, suñu maam doon wax Mamadou Dia. Mm-hmm. ba mu ko waxee luñ ko daan def di naan mu ngi puudar mu ngi euh, naan day day day day nekk di puudar waa dëkk bi c'est pas vrai loolu mooy dëkk mm-hmm. état li mu bëgg mooy nga créer entreprise mu jël ay import di dal sa kaw wala muy bàyyi ay entrepreneurs internationaux muy ay banque ak ay assurance ak lu ne ñuy ñëw di dal sa kaw muy seetaan mm-hmm. ndax ku ñu ku waxul dëgg wax fen dis nga boo xoolee li tax réaction yi du am damay jël kaawu universitaire yi parce que ñun ñëpp lañ fi nekka la ah mais damay jël ay points rek waaw boo xoolee universitaire yi à chaque fois dañuy nekk di casse un mois ñuy grève ñu naan kon état bi amul xaalis état amul xaalis xam nga la ñuy def universitaire yi dañu leen koy fay sur toute l'année état nit tër xaalis bi lekk ko soit mu def ko ci campagne wala mu def ko ci poche boppam wala mu def ko moo xam banque bi ñëw ne ko <laughs> sama waay bàyyil ma fayal xale yi mu la fayalee xale yi nag après ñu xam nu ñuy def lii moo fi ne mu fay ko pare nag ku la jox ay bët fu ko neex xool ah lii la de problème baa ngi nii boo ko waxee ñu ne tey ñu rey la mhm. ñun nag bañuñu ci dara ndax ñun bu dee kaso la dañ ñëw tëja tëja tëja te yéen xam ngeen ci dara man sax xañ ne dee fois ma rëcc ndax man yenn saa yi ma tukki wala yenn saa yi ma bootu sama ginnaaw yaay ndax euh, moom murit la yenn saa ma dem sama ginnaaw papa ndax moom laayeen la yenn saa ma dem sama nijaayu tijaan ba yenn saa yi ma dem ca église ba làqatu fa xam nga man damay rëcc waaw wala ma wala ma dem ci militaire yi ne leen boo leen ma sauvéwul rek man man bàyyi naa dëkk bi waaw xam nga ñu kii ma waaye faabara uh-huh. kaso bi moom këram la ah, donc ñun bañuñu ci dara xoola keroog bi ñuy campagne gis ngeen ko dañoo dugg biir xombal rek ay borom sareet yoo xam ne xamuñu fu ñu jógee ay xale di ñu tafaare ay xeer ba toj camion wu RTS xam nga ne loolu ñaaw na bu doon suñu oto lañ toj sax garaaw ndax ñu tàmm nañ ko mais lu toll ni RTS institution kañ la ñuy ci suñu institution yi kañ la ñuy jël loi yi ñu bind nga xam ne depuis Mamadou Dia ñu ngi koy bind di ko répété di ko bind ji di def ay séminaire di toog ci hôtel yeeg euh, kii yi di lekk ka naan ñu leen di kii te chaque année ñu reprendre ko mhm. kañ la ñuy respecté loolu yooyu proposition. kañ lañ koy respecté en tout cas question la boo xam ni euh, bëgg nañ ko poser euh, ki nga xam ni certainement du ñàkk mu ngi ci ligne bi avec la complicité de la régie Maïmouna su fekkee ni. Euh, moo di Guiro euh, il est en ligne mën nañu waxtaan ak moom ndax xam nañ ni moom itam il a traversé traversé les âges euh, de la politique ci cadre syndicalisme bi nga xam ni moom lay yëngu di représenter partout ñi nga xam ni ñoom ñooy travailleurs yi ak consommateurs yi buñ ko waxee nag xel yi dem ci ñi nga xam ni ñooy fonctionnaires yi xel yi dem ci agent public